ci benn salle bu fees lool foofe ci UCAD de université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru foofu la askanu lëmm bu jógee ci commune bu Jingaake daal di dajaloo ngir rek mën a màggal fukki ak ñaareel édition bu conférence religieuse bu association pour le développement de la commune de Jingaake mu nekk jamono bi nga xamante ne daanaka mucc na ayib lool waaye nag ñu daal di respecter tradition bi nga xamante ne doon nañ ko woon woyal ci ay at yu nuy weesu ci loolee nag la ñu daal di prôné ngir rek ñu mën a amal ab jàmm waaye tamit déggoo diggante ressortissants yi nga xamante ne ñoo bawoo Casamance fii ci Ndakaaru. lu ñu soxla la te Sénégal du caageen suñu commune rek ko soxla mais Sénégal euh, fépp ko soxla surtout euh, ko xam fi ñu jóge wala ci ati yi jóge ci at yi rewees yi vraiment xat-xat yi euh, taroon donc ñun commune de Djingaké Euh, mbégte la ñu woote euh, kii euh, jàmm la ñu woote donc déggoo lañu woote mbokkoo la ñu woote donc naka noonu ñaax vraiment xale yi rawatina les plus jeunes te fii ñoom dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax parce que ñu ngi ñu ngi fii ci université bi Euh, amicale des élèves et étudiants yoo xamante ne suñu ndongo daara ñu nekk université ñoom jàpp dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax ci organisation bi. ñoom yëpp dañu am benn cadre de concertation bu ñuy permettre di xam seen jafe-jafe comme ça ñu tamit ñu seet lan lañ ci mun a. Euh, andi comme saafara donc loolu moo ñu liyee tey loolu moo tax tey boo leen gis boo xoolee tey salle bi tey gis nga ay étudiants yu bëri ñëw fii ndax ñun ak ñoom. dafa am benn euh, waxtaan bu nekk suñuy diggante benn relation bu nekk suñuy diggante buy tax kenn duñu réeroo ndax lépp lu étudiant yi di def xam nañ ko jafe-jafe yi ñu ñu ngi te am xam euh, xam nañ ko te nag euh, ñu ngi def tamit suñu suñu kantalaay. naka noonee ASDECOD nag daal di respecté cérémonie bi nga xamante ne moom la doon amal waaye tamit mu daal di sëppali jamono piile mu nekk séance ngir rek mën a xalaatandoo ana nan la ñuy def ngir ñu mën a taxawal ay bànqaas waaye tamit ay projet ci wàllu mission bi nga xamante ne moom lay amal ngir mën a développer commune bu Djingaky. xam donc dara taxu ko jóg lu dul développement donc ku wax développement wax ay secteurs ay différents secteurs yoo xamante ne yu ëmb développement. seen message la tam gaa ñoom ñu ngi fii pour ut xam-xam waaye tam bàyyi ñu valeur yoo xamante ne ay valeur euh, mbokkoo la ay valeur dimbalante la ay valeur euh, vraiment demalante la. naka noone commune boobule sax mi nga xamante ne ki ko jiite moom moo di ndey ji réew bi di Alfousseni Amarta Diémé moom nag daal di respecté lool ay principe yi nga xamante ne yooyu lay taxawal mën a jëmale kanam commune bu Djingaké waaye it booleek di fësal ay objectif association pour le développement de la commune de Djingaké waaw loolu dafa bokk ci suñu euh, ci suñuy projet ndax tey éducation ku wax Euh, développement te waxoo éducation mooy euh, yow yaa ngi bàyyi base bi parce que ndax base bi yëpp éducation na base bi yëpp formation la donc ci biir formation boobu ASTECOD mu ngi ciy am taxawaay taxawaay bu rafet ndax euh, tey ñu ngi lëkkaloo ak suñu étudiants yi mu nekk étudiant mu nekk université Cheikh Anta Diop de Dakar wala mu nekk Gaston Berger wala mu nekk université Ziguinchor wala Bambey te ñoom yëpp dañu am benn cadre de concertation bu ñuy permettre di xam seen jafe-jafe comme saa ñun tamit ñu seet lan lañ ci mun a euh, andi comme saafara donc loolu moo ñu liyee tey moo tax tey boo leen gis boo xoolee tey salle bi tey gis nga ay étudiants yu bëri ñëw fii ndax ñun ak ñoom dafa am benn euh, waxtaan bu nekk suñuy diggante benn relation bu nekk suñuy diggante buy tax kenn duñu réeroo. ndax lépp lu étudiants yi di def xam nañ ko jafe-jafe yi ñu ñu ngi nanta am xam euh, xam nañ ko te nag euh, ñu ngi def tamit euh, suñu suñu kantalaay waaw. waaw xam nga léegi association yi association bu nekk tey lu mu gën a soxla mooy mooy solidarité mooy unité donc loolu dañu ci gën a lancé waat appel rek ñu nga xamante ni ay doomu commune Dingaki dañu ñu nekk fii Dakar wala ñu nekk si gox bi. ah ñu jege association bi ñu uy si association bi ndax loolu mooy suñu jëriñ la association bi du association benn nit la. association boo xamante ne action yi muy def njëriñu commune Djingack yi ñëpp la waaye tamit njëriñu Sénégal ñëpp la loolu moo tax ñu ngi woo ñëpp di woo autorité mi tamit ñu ñu jàppale ndax association bu taxaw taxawaay bi dafa laaj ku koy jàppale. donc ci loolu ñu ngi woote euh, autorités yi ñu bàyyi ci xel si association gannaaw ba mu jëlee kàddu gi moom it euh, président bu association pour le développement de la commune de Djingaké Asdecod Siaka Diatta daal di ñëwaat ci mission bi nga xamante ne moom la kuréel boobu daal di samp ngir rek mun a soppar ñi commune boobu mu nekk commune bu émergent ñun secteur bu ñu jëkk a song mooy secteur agriculture mooy affaire mbéy bi ndax euh, tey euh, gis nañu ni xale yu góor yi tey ñu bëri ñu ngi bàyyi béy di dem uti leneen te xëy na leneen lu ñuy uti loolu pour ñu am ko léeg day jafe si ñoom. donc tey ñu am taxawaay bu nga xamante ne taxawaay sensibilisation dem waxtaan ak ñoom euh, di leen di wax jëriñu Euh, mbéy mi. commune bu Djingacké nag gannaaw ba mu nekkee ci région bu Ziguinchor te it ku xam région boobule daanaka dafa nekkoon ci jamono bi nga xamante ne bu tar lool depuis ci ay at yi loole nag moo taxoon mbe gouvernement bu yees bi ñu samp ni te Bassirou jommay fay daal di ko jiitee ñu daal di xaar ci ñoom lu bëri ngir rekk mun a dimbale région boobule rawatina commune bu Djingacké vraiment yàlla euh, oyofal yéen bi ci loxoom euh, yàlla ubbi wërsëg Sénégal waaye it euh, ñu yokk ci ne ñun ci gox-goxaat bi ñu fi ñu bayee ko ay dañ fa am lu ñu fa war a saafara yu bëree bëri wàllu ndox wàllu mbéy mbéy d'accord wàllu jàng ak jàngale bi wàllu faj paju ak euh, wàllu euh, euh, environnement bi tam loolu yëpp nekk na loo xamante ne buñ ci mënoon a taxaw de loolu de dinañ ci mën a jàppale wala tam dem ak digg bi parce que enclavement bi tar na côté boobu parce que ñëpp kenn ëmplewul kenn ne côté yooyu ci lu yàgg vraiment jàmm amu fawoon moo tax état mënu fa def yenn tey jii li mu noon tax ngir rek ñu mën a soppar ñi commune boobule faw rek ñu teg ay jéego amal ay formation jégleel ko ndaw étudiants yi nekk ci commune boobule fii ci ndakaaru waaye it ñu taxawal ay banqaas ñu mën a dellu ci wàllum mbay mi. mais yem ñu ci loolu ñun ñi dañuy jóg taxaw di yor suñu tool di béy te te loolu tey lañuy ñuy sensibiliser suñu cadre yi commune yépp tey ak travers nous donc euh, euh, cadre yi commune Djingaké xale yi góor yi commune Djingaké ak association bi si boppam tey mu ngi wàcc euh, au niveau local di di di béy ay tool yi tool yu bëri te loolu gis nañu mu ngi commencé am njëriñ si si population bi. waaw loolu dafa bokk si suñu si suñu projet. ndax tey éducation ku wax développement te waxu éducation mooy yow yaa ngi bàyyi base bi. parce que ndax base bi yëpp éducation la base bi yëpp formation la donc ci biir formation boobu ASD Code mu ngi ciy am taxawaay taxawaay bu rafet ndax euh, tey ñu ngi lëkkaloo ak suñu euh, étudiants yi mu nekk étudiant mu nekk euh, université Cheikh Anta Diop Dakar wala mu nekk Gaston Berger wala mu nekk université Ziguinchor wala Bambey te ñoom yëpp dañu am benn cadre de concertation bu ñuy permettre di xam seen jafe-jafe comme ça ñun tamit ñu seet lan lañ ci mun a Euh, andi comme saafara. waaw mooy daal ñu jox ñu xaalis ñu liggéey parce que femmes yu bëri liggéeyatuñu comme liggéeyatuñu bu ñu amee financement dañuy jox ñi nga xam ne dañuy fay liggéey ñu fay parce que même tissu yi noonu la ñuy jënd jox nit mu fay de plus pour kees bi mën a am dara. waaw ah, waaw bu ñu amee formation jigéen ñi parce que jigéen ñi yoo gis nga jigéen ñi jigéen ñi toujours ñooy gën a génn koo kë ñi bu ñu amee formation boo xam ne mun nañ ñu ci jàppale. tamit baax ci weeru koor gi bëri nañu woon ay mbooloo yi nga xamante ne ay ressortissants lañu ñi jóge ci région bu Casamance te nekk fii ci Ndakaaru bokk ci commune bu Djingacké ñoom ñoo daal di ñëw teewee conférence religieuse bile mi nga xamante ne daanaka ab porox ndoll la ngir rek ñu mën a toog waxtaanandoor ana nan la ñuy def ngir ñu jëmale kanam commune bu Djingacké mu nekk commune bu naatangee C'est dans une salle archi-comble de l'UCAD 2 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où s'est réunie toute une commune pour célébrer la 12e édition de la conférence de l'ASDECODE, l'association pour le développement de la commune de Djingaké un moment solennel pour perpétuer à la tradition avec le seul souci de prôner l'unité et l'entente des ressortissants à Dakar. Nous sommes rares des communes au qui a cette forme d'organisation. Peu de communes aujourd'hui qui ont une association, une association au-delà de, de, de, du conseil municipal, une association aujourd'hui qui accompagne le conseil municipal dans le cadre du développement. Nous sommes l'une des communes rares qui ont cette organisation. C'est pourquoi il faut préserver cette organisation. Et c'est pourquoi nous appelons les membres de cette association, les fils de la commune de Zingak, à nous rejoindre, à venir et à accompagner les initiatives de cette association. Parce que ce n'est qu'un bénéfice pour tout le monde, un bénéfice non seulement pour la commune de Djingake, mais pour tout le Sénégal. Puisque quand la commune de Djingake va avoir des progrès, mais ces progrès vont être ressentis dans le reste de la région. Effectivement, quand on parle de la région, on parle du Sénégal. Donc c'est pourquoi nous lançons encore une fois l'appel à tous les membres et de la commune de Djingake de, de, se rapprocher mais surtout euh, d'accompagner initiatives vraiment de cette association Essentiellement, Jair, euh, le trait euh, marquant de ces activités, c'est justement euh, perpétuer la solidarité qui est un euh, une chose fondamentale dans le milieu Diola, parce que nous tous, nous sommes la même commune, de la même communauté, du même terroir. Et donc là, ce sont des valeurs. de solidarité que nous ne voulons pas perdre une fois à Dakar où nous sommes appelés quand par les besoins de travail, d'activités de, professionnelles et, ou d'autres euh, activités vraiment à côté. Mais et, ici, on, on, on se réjouit justement de justement ces, cette activité-là et de cette considération-là, en tout cas de ce rappel perpétuel en plusieurs occasions. Aujourd'hui, c'est euh, la fibre religieuse à travers cette conférence religieuse, mais aussi il y a des hawarés, d'autres activités beaucoup plus euh, récréatives euh, qui nous réunissent pour perpétuer justement ce vivre ensemble euh, communautaire et ce vivre ensemble au niveau du, du Sénégal qui est partagé par toutes les communautés d'ailleurs. Dans son ancrage, l'ASDECODE va ainsi traduire ce moment fort en séance de réflexion, mais aussi déterminer les axes prioritaires assignés à sa mission de développement communautaire. C'est de, de rassemblement, un message de solidarité, mais un message surtout de pérennisation de cette activité. Et qui dit pérennisation dit mobilisation. Donc nous appelons tous les membres de la commune de Djingaki, surtout membres de cette association, de se rapprocher, euh, de répondre aux appels euh, du bureau qui est en place, euh, qui travaille aujourd'hui pour le développement. Parce que beaucoup de projets aujourd'hui de la commune de, de, de cette association c'est des projets de développement. Évidemment, les attentes euh, sont partagées au niveau de, du territoire national, mais également au niveau de la Casamance de façon générale, euh, qui a souffert quand même de plusieurs maux. D'abord, euh, il y a la paix qui, qui doit être confortée. Euh, nous en avons souffert pendant presque des décennies. Aujourd'hui, Alhamdulillah, quand même euh, les choses reviennent et la cohésion sociale est en train de prendre euh, la place. D'accord Tant mieux. Et les accompagnements Euh, de l'État, tout comme des bailleurs des partenaires euh, du Sénégal euh, sont en au niveau principalement de la commune de Djinaké. Je peux le dire avec l'USAID qui est quand même euh, très fortement euh, à présente à travers le CRS et Caritas et les autres organismes de, de, de, de mise en œuvre justement des projets. D'accord L'autre élément, c'est un peu ce retard infrastructurel occasionné par justement ce conflit et le désenclavement. Ainsi, la commune de Djingaki, dirigée par le maire Alfousseini Amarta Djemé, fidèle au principe de développement des gaz. À cet effet, les objectifs de la SDECODE. Justement, l'accès à l'eau, euh, l'éducation, la santé, les infrastructures de santé, ma foi, il y en a beaucoup et surtout l'environnement. Parce que avec euh, le temps, il s'est installé une économie de guerre, en tout cas euh, pour, les, pour laquelle les activités parfois sont malsaines. Donc, euh, mais également, euh, il y a des lueurs d'espoir. Embouchant la même trompette, le président de l'Association pour le développement de la commune de Djingake, Asdekod, Siaka Diata, est revenu sur les missions de la structure. Dans les perspectives, bien sûr, il y a d'énormes projets concernant les jeunes. Et parmi les projets, c'est la formation. Et nous savons très bien, et nous n'avons pas exclu de nouer des partenariats avec le 3FBT. Nous n'avons pas exclu d'aller voir les euh, structures aujourd'hui qui accompagnent des jeunes dans ce sens pour nouer des partenariats pour que nos jeunes puissent bénéficier des formations professionnelle, des formations pratiques pour qu'ils puissent être opérationnels du jour au lendemain dès que la formation est terminée. En tout cas, nous sommes là pour nous sommes là pour dans le dans le dans le côté social pour accompagner les jeunes, pour accompagner surtout les femmes aussi parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de, de mettre nous avons déjà mis en place un GIE des femmes, mais le GIE l'objectif c'est quoi? C'est d'accompagner ces femmes à obtenir des financements mais aussi à avoir des activités de génératrices de, génératrice de revenus les accompagner dans leur, dans leur, dans leurs activités La commune de Djigake étant dans la région de Ziguinchor et qui a subi tant de souffrances depuis des décennies attend beaucoup du nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Tel que nous lançons aux autorités, c'est encore une fois euh, de rendre équitable ce développement en tout cas euh, du Sénégal. d'accord de regarder beaucoup plus loin en profondeur par rapport aux communautés qui sont restées à la base et mettre des infrastructures de façon à retenir les jeunes là où ils sont et quand même euh, de permettre euh, quand même des activités euh, génératrices de revenus qui permettent de leur, leur plein épanouissement. Le maire de la commune de Djingaké a déjà ciblé les projets phares, de même que le président de l'ASDECODE. au-delà de, de, cette, de cette, l'agriculture, mais il y a l'environnement. Parce que nous, nous faisons partie de, la forêt qu'on appelle Jakaï. Et cette forêt, bien sûr, c'est, est aujourd'hui menacée. Et donc, les actions qui sont des actions de l'association, c'est des actions de sensibilisation pour la protection, encore une fois, de cette, de cette forêt. Mais au-delà, nous intervenons sur, sur plusieurs domaines. La santé et l'éducation surtout. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner des étudiants ressortissants de la commune de Djingake, où se trouve l'université Cheikh Anta de Dakar, Gaston Berger, Ziguinchor, nous le rencontrons avec les étudiants régulièrement pour échanger avec eux, pour comprendre leurs problèmes, mais les accompagner vraiment à, notre, à un niveau que nous, nous pouvons supporter. Aujourd'hui, la seule alternative est de mettre en avant le soutien et la formation des jeunes étudiants à l'université chez Anta Diop de Dakar et un peu partout dans le pays, mais aussi le retour vers l'agriculture. Nous intervenons sur plusieurs domaines. Nous intervenons au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, nous, même association, nous cultivons au niveau local. Mais on ne s'est pas arrêté Nous sommes, en, nous dans la sensibilisation, puisque nous avons constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes essayaient d'abandonner l'agriculture et que nous savons que l'avenir, c'est l'agriculture. Et c'est pourquoi notre association a, fait un, a, fait, a pris ce combat en main pour qu'il qu y ait un retour des jeunes vers la terre. Une élection, euh, une élection vraiment qui s'est passée en paix et dans la transparence. Et ça, c'est d'abord qu'il faut saluer le bon Dieu. Mais au-delà, euh, nous nous saluons surtout les nouveaux gouvernants. Le nouveau président, nous sommes en train de lui féliciter le félicitons et nous souhaitons qu'il puisse surtout répondre aux attentes des Sénégalais. Les attentes des Sénégalais sont nombreuses, mais chaque président vient et fait ce qu'il peut faire et laisse, en tout cas... En ce mois béni de Ramadan, Ils étaient des centaines de ressortissants de la commune de Djingake à assister massivement à cette conférence religieuse qui constitue un prétexte pour se retrouver et réfléchir ensemble pour un Djingaki prospère et développé.